mu mel ni coggal waaye nag malgré ça ñoom amuñu fit ni Sonko di def benn du ma ne ñeneen ñi sax ñeneen ñi moom <laughs> est-ce que est-ce que est-ce que ñeneen ñi ñu ngi am bat léegi dama euh, euh, ñeneen ñeneen ñi moom yóguma leen Amadou Ba daal xam naa ni mi ngi jaar ci dëkk yi faj faj faj faj du fa sax taxaw du fa sax taxaw Sonko ngeen gis campagne électorale boo xam ni comme campagne americain yi du jënd du joxe tiset du joxe dara du wax du woote day jàll rek dëkk bi màbb maire yi paa yi yaay xale yi liir yi ñëpp bay jóg Sonko kese Sonko jomaay moom ñooy jaar fu ñu jaar dëkk bi mel ni xal ak doomu taal billaay wallaay ñëpp jo di màbb di mel di mbëkkante bunt yi di taw di taw xooxoo te dërëm jox ñu leen ko dërëm bu gën a ndaw du njaga njaay du tiset du dara booy dañ ciy topp di daw Casamance Ziguinchor lañ jóge daw biñu Bignona trente kilomètres ay booy di ko daw <laughs> allahu akbar mag yi maire yi paa yi mel ni yàlla bu yegsi mel ni yeneen bi bu yegsi yonent bi ne bu muy jógee Màkka dem Medina ñu koy teeru taaraal badru alay naa joxewul tiset joxewul kaar joxewul xartum fayul dërëm loolu de mooy feeñ ci Sonko nii fu mu dugg taalaal badru alay naa bi di jolli gars yi di daw di màbb di ñëw te joxuñu kenn dara ñuy daw ba seen tànk yi di xotteeku di daw ba seen dàll yi di dagg billaahi wallaahi wa nga xam ni kon yàlla wàcce na beneen air bu war a changé réew mi man Sonko mu koy gis damay fa may jox cent pour cent Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ci jaar jaar-jaaram benn jaar-jaar la lu ne la pexeel na noon bi pexeel Mohamed sallallahu alayhi wa sallam moo mujjee ndam la lu ne la ñu pexeel Ousmane Sonko ba suñu jonn yàlla tey moo mujjee ndam la fu mu romb ci weeru koor nit yi woor nit yi dañuy bàyyi seen koor ndogootuñu ñi ngi ndogoo ci àll ba fu mu romb def ko dóom fu mu def ko dóom Amadou Ba mosu leen ko gis ci ay dëkk mu traversé ay dëkk génn jóg taxaw nii ne dañuy jël xar yi am fu ñu leen duy sotti leen foofu bu ñëwee foofu lay jaar kurti kurti xar yi wax xar yi mbee mbee mbee ba yi yuuxu mbaam xuxi mbe ah, après mu dem yoonam ñoom ñu yóbbu seen ngooñ dem lekki mais Sonko lu muy def moom di traverser toute une région di traverser dëkk bi ci bopp ba bopp Kaolack ba fin Kaolack waa Kaolack gi ak dëkk bi nu muy réyee ñuy daw di xotteeku di génn ci ay koñ di ñëw di mel ni maare day taali gis ngeen population Tanaff bi gis ngeen population Casamance bi Casamance bi yëpp gis ngeen Kolda jeex bunt bi laa gis moto yi te booy ay borom moto yi ñoo leen di jox ñoo leen di jox pour ñu dawal leen seen moto booy def ci essence dem di ko teeru ji kenn fayu leen wallahi al azim kenn Casamance ay zone yoo xam ne quarante degré dans l'ombre gars yi di dawal moto yu topp ko man dama tiit Kolda googu ñu doon wax Kolda buntu ba ba fee ba <laughs> Amadou Ba ñi loolu Kolda fat-fat la fa def taxawu fa sax nalawu fa comme comme dëju liir comme dëju liir comme ku ku ku tudd rek amul ñu amul fitu jaar fenn taxaw fa amul fitu jaar fenn traversé dëkk comme daju liir faj faj faj faj day ñëw rek ci xar ya xar yi lañ koy dajaleel jox leen tuuti xaalis ñi ñëw mu mbee yu xoo bee bee wala leen naa day ngeen day bee bee ñuy yuuxu tàccu boo yéen comme yéen waa bi ngeen da ngeen di laaboo suuf di laaboo ay xeer di laaboo ay ay bant dinaa defal ndox bu ngeen di laaboo mbee mbee mbee bu bu mu dem yoonam duul ba dee noonu jeex na kese Sonko moo ñëw jàppee leen nit respecté leen jox leen seen àq ak seen yelleef ñëw salaamaaleykum ci buntu ba dëkk ba màbb na yonantu ba ñëw na sallallahu alayhi wa sallam yegg si na bum màbb di naaw di daw jox ñu leen fukki dërëm sol ñu tiset ñi ngi ñi ñii sax solu ñu dàll solu ñu dàll nga xam ne day wax ak ñoom lu leer ñëwul di fen naa leen joxal lii dinaa leen fen di fen di duul di dajal naa leen defaral ay cabinet amuleen leen ci àll bi ngeen di dayee manqué leen respect noonu ay yéen suuf ngeen boo leen dayee suuf ngeen di fompoo dinaa leen wutal ay bant non moom day ñëw wax leen réalité dëgg la leen di wax dëggu yàlla ji bëgg ngeen ko neex na leen naqari na leen lii la lii ñu leen ñi leen appauvrir ñoo fi jaar léegi ki leen toroxal def leen ni ngeen doon nii moo fi jaar léegi xam na lim leen def moo tax amul fitu ñëw wër dëkk bi bu koy def di dee xam na lim leen def moo tax day ñëw ci xar yi ko dajaleel mu yuuxu foofu ñu mbee yuuxu nag yeeg bëy yeeg mbaam xux ya ñu ak fas yi ñu mbee yuuxu mu jox leen tuuti ngooñ ak ripaas wala ñax wala carton après mu dem yoonam kon nag yéen la région de Kolda de Matam de Podor de Kaolack de Kédougou de Saraya de Dindéfelo de dëkk yooyu yëpp xam naa ko dëkk yooyu def naa ko barke alxuraan extrêmement pauvre extrêmement pauvre te pauvreté boobu noonu seen njiit yi ñii ñoo at fa di fen nii ñoo leen ko def ba pare di leen xasee seen pauvreté di leen xasee seen ñàkk ba di leen tuddee ay nitu àll ñun waa nitu àll bi nag ñoo buggu ren ñu fal nitu àll comme ñun dañuy saaga waa nitu àll bi maa ngi leen di woo ci ñu fal tey nitu àll Diomaye Faye nitu àll la ñoom nee nañ nitu àll la man mii nitu àll laa yow nitu àll nga kon ñi ngi woo nitu àll yëpp de à part dakaar part ñoom xam nañ seen bopp à part Dakar lu jege ci Kaffrine lépp lu ko bàyyeekoo ci Mbour Thiès euh, Kaolack Kolda ba yëpp ñun nitu àll yi nañu votel nitu àll bi wan ni on est fier d'être des villageois on est fier ñu bàyyee ko penku saay ñun nitu àll comme ñoom loolu la ñu jàppee di ñu diaboliser amuñu respect ci ñun di ñu saaga di ñu woowee ay nitu àll yépp ñu di ñu fenal di ñu sosal nañ la woon ni ren at mi atu nitu àll la incha allah da ngeen ñuy ñun dinañ ko jël def ko suñu arm de guerre bu soowee yàlla donc yéen ñëpp gis ngeen tourné Ousmane Sonko bi kenn ñemewul def lu muy def di traverser dëkk lëmb di dox te benn doomu aadama amul fit bi def noonu kenn defu ko amul benn campagne électorale boo leen gis Jomaay ak Sonko ak seen seen cortège fu ñu wër dëkk bi yëpp traverser toute la région di fa taxaw di fa fanaan di yow jóg dem kenn ñemewu ko Tambacounda googu ñu doon wax nag naan ay mokk naag ñu dajale leen ci stade yi <laughs> Tamba rek sama dëkk la bañ naa ko ba sama benn cousin sax lenk àqan moo fa nekk di leen foowee muy Mamadou Kassé Mamadou Kassé nag man nawlawuma ko nawlawuma ko samay mbokk nawlawuñ ko xam naa ne daal ab xaj la ne woon na fi directeur H SM HLM Mamadou kase papa mooy Moustapha Kassé Moustapha kase la doyen des sciences éco papa yi Moustapha Kassé ak ku jur sama papa ñoo bokk ndey ak baay kon xam nga ni Mamadou Mamadou maa nekk Séné maa nekk Tamba du musa Fallou man amul kuy dox Tamba ku ma gën a jege Mamadou Kassé Mamadou kase papaam ak man ku jur sama papa ñoo bokk ndey ak baay Mamadou Kassé SMHLM kooku dajalee waa Tamba mbaam xuux yi quelque mbaam xuux yooyu mu dajalee dugal leen ci ay mbaam xuux mbaam àll yooyu mu dugal ci stade ba mu kii jaar fa nuyu leen tàccu leen dem kooku man la gën a jegeel xam naa ne buy wër doomi xaram jàppal mun na fen du wax dëgg mu sul xeexal Sénégal man bu may xeexal Sénégal musuma Mamadou Seck Mamadou mu musul xeexal Sénégal barke alxuraan fan résidence la dëkk baayam nekk directeur science euh, ko directeur science euh, ko nekk professeur xamul galère xamul dara musul bëgg Tamba Tamba bu mu fa doon ñëw ñun ñi suñu suñu morom la dafa doon ñëw vacances ñëw fa xoolal na ay fii dafa tàng di saaga Tamba Mamadou Kassé moomu moo tax dëkku fa sax foofu mu dëkk noonu plateau baayam moo ko tabax ñun ñu ngi fa nekk ay xale bu doon ñëw ñun dañ ñu doon xeeb ñun fan résidence la ñu jógee du ñu saaga ñun ñun ñun waa Tamba yi ñu nekk même xale tolloo muy ñëw du ñu saaga billaay wallaay naan yëg pauvre que vous waa Tamba yi ngeen xasawee nu ngeen xeeñee tàngoor gi nii xool leen fii naan papa je veux rentrer papa je veux rentrer billaay suñu kanam papa je veux rentrer di woo papaam Moustapha Kassé doyen des sciences ko di ko woo papaam je veux rentrer il fait chaud si c'est la merde di saaga di saaga Tamba moo tax moo ko gisee tey jii ay ree la ma def ma ne ñii xamuñu waa ji jàppeewul waa Tamba lu jigéen yi la jàpp di tëddee jàpp ñoom ñëpp wutal na leen bu mu ko yoree SM HLM ay appartement jë booy Tamba yi taxawaal yi la for dugal leen wutal leen ay appartement ndax moo géré mooy directeur SM HLM loolu la fa liggéey jël jege jigéenu tàmbaay yóbbu leen dakaar di leen tëddee matin midi soir xam naa ci ñoo xam bu ma waxoon seen tur dëkk bi tàkk ndax yàgg naa leen gis mu Kassé di leen ñëw di leen tëddee appartement wutal leen liggéey tëddee rek la leen di def moom Tamba lu mu leen jàppee ay jigéen la ci soxla di leen tëddee matin midi soir dëpp ka dippi la Momadou Kassé di liggéey billaahi di leen saaga ndey nag ak a ñàkk respecté bambara yi sax ak ñàkk respecte bambara Tamba yi da leen di saaga ndey rek. musul leen waxal lu rafet loolu daf ma mettee métti ba nga xam ni wax sensibiliser naa waa Tamba ne leen kii man la gën a bokkal fenkat la sàcckat la musu leen bëgg dafa yàgg saaga Tamba amul respect ci Tamba amul respect ci Tamba joxu leen cër xoolu nawloowu leen sax Mamadou Kassé laa leen wax dégg nga ma leen papam ak ku jur sama papa ñoo bokk ndey ak baay ak baay ñun ñi mu bokkal kenn jàppalewu ko du la wax du la woon kenn ci ñu mu bokkal ne kii mooy jàppal ndax xam nañ ko ab doome xaram bu mag la Modou Kassé tekkiwul dara dara ci àdduna moom xam na moo bu baax a baax a baax lu dul cagatu lu dul cagatu kese jàpp waat Tamba yi di tëddee rek di tëddee yóbbu Dakar wutal leen ay appartement ne dañuy liggéey SFHLM liggéeyuñ fa dara di tëddee rek sama cousin direct di tëddee rek xamul galère dara defu ko bu musul xeexal senegal buggul Tamba na ngeen am fulla yéen waa tàmba moo tax am nañ ko ki ma bokkal ñi ma xam ne maal ak ñoom ñoo bokk ndaay ak baay démb génn nañ mun naa leen ko won <laughs> Mamour Kassé buy def yëfu imbécile man sama famille ñoom ñëpp ñoo génn def kii bi di xaar Ousmane Sonko Ousmane Sonko dëkk bi yëpp ba nga xaar Tamba yëpp li démb la ñii samay mbokk lañ. pour wane ni ñoon ànd ñoog Mamadou Kassé ci yëfu imbécile yëfu xajam yi Tambacounda Sonko la ñun ñu ngi fii ñu koy xaar ba ba léegi Sonko rek Sonko rek à Tambacounda mu si fee am xool ay cousin wu Mamadou Kassé ñoo ko organisé samay frère man samay grand frère ñoo organise liy démb pour wan ni Mamadou kase doo fi dara doo fekk ñun suñu bàyyi liggéey Tamba ba mat sëkk rayante fi ba doon lu ñu doon nga bëgg a ñëw doge fële fils de bourgeois musoo xam méttit musoo xam galère jàngee ji France ñëw taxawaalu wëndaalu ñëw jël tàmba def leen benn gagne-pain di ci dundu di tëddee jigéen ya jàpp góor yi def leen cogg ak jàgg ñu topp la te chaque jour ngay saaga bambara ay faafaro dee ñaama ko beedaa jóog li na saaga rek nga leen di def amoo cër ci ñoom joxoo leen cër jàppewoo leen sax nit seen jigéen yi nga tëddee seen góor yi nga def jàgg ak ñun ñoo jóg nag ñun ñii nga xam ne dañoo mbokk yow jóg duul loola fen loola wax la bëggoo Tamba doo nitu dara doo nitu sax waa Tamba sa maam moo juddoon Tamba comme sama maam ñoo bokk benn maam jeex na bu weesoo loolu doo daray Tamba ñoo tax ñun ñoo jógalaat sañu bopp ñun waa Tamba di la xeex yow dëmb bi yow doomu xaram bi yow Mamadou kase bu ma la saagaan rek benn kenn mënu cee dugg ndax sama cousin direct nga mais doome xaram nga caga bon nga bàyyil jigéenu Tamba yi ngay tëddee bàyyil jigéeni Tamba yi ngay dugal Dakar di leen wutal ay fay xaalis di leen tëddee bàyyil jigéeni Tamba yi ngay def caga bàyyil jigéen Sénégal Tamba yi ngay saaga nday bàyyil ñi ngay saaga nday bàyyil ñi ngay manqué respect yow Mamadou Kassé vrai doome xaraam nga yow vrai doome kuttu mbaasaan nga yow sa baay gën a baax ñëpp yow doome xaram nga juddu ko bon nga juddoo ñu waa Tamba ñu ngi nii di xaar depuis démb waa Tamba ci mbedd yi di xaar euh, Ousmane Sonko depuis démb ñu ngi nii depuis démb. musu fi am Tambacounda lii musu fi am kenn musu ñëw fay dara ñu ngi fii di